Sargueil. Né ici à Dakar. J'ai 59 ans. J'ai fait 33 ans à la SAI, l'imprimerie. J'ai rentré dans l'imprimerie à l'âge de 20 ans. ci sama ñaar fukki at ci laa dugg ci imprimerie ci benn société bu ñuy wax SA2I bu nekkoon dem Toba fofu la jógee après ñëw fi donc li ñuy jëkk wax dañuy sant yalla bu baax alayhi wa sallam di ñaan yàlla suma borom ci weer yi ñu nekk fii nga xam ni fi la ñu ñëw bi bëriwul liggéeyukaay am koo xam ni dafa jël ay milliards def ko fi ngir lépp pour Sénégal ñu ñaan suñu boroom yal na yàlla jubal ci doxal liñ ci namm bëgg ko ci muy njariñu réew mi yàlla def ci lu suñu jot li ñuy tegoo mooy ñu ngi nuyu monsieur le ministre di ko ñaanal yàlla

pilier scolaire moom mooy def boîte yi moom mooy pilier mooy coller les boîtes pharmacie ainsi de suite kon nag loolu lépp soo ko amee yaa les masico nga am tout kon nag donc mën nañu wax ni ñun am nous lépp li ci des nag mooy marché yi ñëw ñu liggéey won ki nga xam ne mooy le ministre des investissements avec son directeur général avec son directeur adjoint Pour lu dul réew mi jëm kanam ñuy wax emploi tey mën naa wax ni Nous lu ëpp 2000 emplois mën na fi parce que benn machines, tout doit tourner 24 heures sur 24 machine bu nekk dina def 3 3 personnes par équipe donc soo ko jëlee benn machine bi day employé 9 personnes nga multiplier ko par nombre de machines yi fi nek nga dem ci box yi dem ci kii pièces colleuses donc kooku man nañ wax ni man nañ créer emploi bo xamni ne kenn xamul fan la jëm di koy may nak moy ñu am marché assez de marché en personnel bu dynamique bu prêt ci personnel bi paré non pour joxe lepp lu ñu man parce que kii ji nañu ko suñu directeur général ji nañu ko kon tan ko fay ci le ministre nak